alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سور الرضوان والتمكين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk ak waxtu bu tedd bi ñu nekk di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq te defal leen ko di ko dollee ñaan mu bàyyil nu fi sunu kilifa gu tedd gi nu gën a yàgg lool gën a am ak tal ak tawfiq ba mën a àggale yéene yi nga xam ne am na ko ci diine ji am na ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom xam na ne àjjuma yi weesu mbokk yi doon waxtaan doon nañ waxtaan ci tomb bu am solo muy asaka asaka ji nga xam ne mooy farata ak la ca aju ci ay atte ak ay njariñ yu ko amal ki koy génne ak ki koy jox ak société bi koy génne yépp yooyu yépp teqale woon nañ ko waxoon nañ ca la ca la ca waxtu wa rawatina ci asakay mbay ci lañ gën a teqale ndaxte dañoo toll ci waxtoom ñu war koo génne gannaaw yooyu yépp nag ñu xam ne asaka mooy àq ji nga xam ne yàlla da ko farataal ci alal wutal ko nu muy toll wutal ko waxtu wuñ koy génnee waaye du ne rek mooy àq yi war a génn ci asaka yi war a génn ci alal bari na lool yeneen yu dul asaka buñ àggul ci dara jaamit sunu borom tabaraka wa taala ñaax nañu ci lool ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaax ñu ci lool ci alquran muy ay bunt yiw yu rëy rëy yoo xam ne ni asaka amee aw yiw yooyu itam noonu la amee aw yiw te ñoo gën a yaatu asaka ndax moom ku ne xaj nga ci laajul am alal wala am lu bari ñu door cee ñu door la cee boole waaye ku ne rek mën nga cee boole sa bopp ngir amut ab lim amut waxtu buñ koy génne amut lim buñ koy génne loolu nag mooy li ñu tuddee sarax muy li ngay soobarewu ci sa alal génne ko jëmee ko ci ñi nga xam ne dañoo aajowoo te yéene ca yoolub yàlla te appaluñu la ko fenn appaluñu la ci lenn loo loo ca mën nga cee def ndax nit ki bu fekkee am na alal wala yàlla dénk na ko dara mën na caa génne asaka bu ko matee waaye dara dana ca des loo xam ne nag ay bunt yu yiw bunt yu yiw yu rëy rëy mën na caa ubbi ko su ko ca sàkkoo te bu ko sàkkoo yi dana ko am ndax lislaam day diine yi dimbalante ak jàppalante jàppalante ci diggante jullit ñi ñi am ak ñi ñàkk ñi wér ak ñi tawat ñi xam ak ñi xamul ak képp koo xam ne rek yor nga dara rek mën nga caa dimbalante ak sa moroomum jullit mën nga ko caa euh, tane ndaxte loolu dimbalante boobu kat day lu mu te ñàkk ci nu doomu aadama amul kenn ku am lépp wala ku man lépp moo tax faaw rek ñuy dimbalante kenn ku ne la nga am ak la nga man ak la nga xam nga di ci dimbale ka ko amul wala ka ko mënul wala ka ko xamul kenn mu ci eh, génn yàlla rek mooy alxani waaye ñun ñëpp ay fuqaraa u lañ ay woy ñàkk lañ yoo xam ne dañoo aajowoo ndimbal dañoo aajowoo jàppale jàppalante suñu borom tabaraka wa taala mi ngi koy wax ci alquran ci aaya yu bari wa taawanu alal birri wa taqwa day leen dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla te mbaax googee ak ragal yàlla googee lii ñuy waxtaane tey ci la bokk muy saraxe dellu waxaat na it jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen yi kenn ku nekk dangay ngay jàppale sa morom kenn ku nekk fa nga mën nga jàppalee fa sa morom fa mu tëlee wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ñaaxee ci lu bari lool ci ay addis yu baree baree baree bari ci jullit yi ni ñu war a jàppantee nu ñu war a dimbalantee nu ñu eh, kenn ku nekk mën a xettil sa morom nga xettil ko al mumin lil mumini kal budyaan yashuddu baaduhu baada mathalu al muminina fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim ka mathali al jasadi al waxid isa shaka minhu udun tadaa lahu saairu al jasadi bi sahri wal xumma kon jullit yëpp benn lañ yooyu yëpp ay mbokk lañ kenn ku nekk da war a jàppee sa mbokk ni sa bopp la nga am nga bokk ko ak moom la nga xam nga bokk ko ak moom bu ko defee suñu borom tabaraka wa taala boole nu dimbali ñun ñëpp kon alquran ni mu farataalee asaka wax ci lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it wax ci lu bari noonu la waxee bunt boobu di buntub saraxe te ni ma ko waxee léegi moo gën a yaatu asaka ba ku ne mën na ca dugg ay njariñ nit bari lool nga xam ne day mel ni bu doon ci julli ñu ne ku julli say farata ba noppi naafile yaa ngi cay teg wala bu doon woor ku woor sa kooru ramadaan muy kooru weeru koor kooru ngatte nga yaa nga cay teg alal it noonu la amee ay ay naafila naafila alal nag mooy sarax boobu nga xam ne moom lañuy génne di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo te jublu ca yoolu yàlla képp am yoolu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa leeral nañu lu bare bari ci addis yu bari lool ci njariñi sarax ak ay ngëneel yi nga xam ne moom la am mu yu bari lool waaye njariñ yooyu ak ngëneel yooyu kat am na ci yu bari yoo xam ne sëriñ bi résumé nañu ko tënkal nañu ko ci masalikul jinaan ci bunt boo xam ne da koo sàkk rek tuddee ko asaka ak joxe sa alal ci yoonu yàlla nga xam ne ab buntub lëm la ci yoo ci ci jinaan mu tuddee ko boobu sadaqati wal infaq fi sabilillah buntub sarax saraxe ak joxe sa alal ci yoon yàlla tabaraka wa taala kon mu loolu li muy tekk la mooy fonk gum ko fonk ak réyal gum ko réyal ba ba ko ab bunt boo xam ne lam cee wax lépp ci sarax rek ci la aju ci loolu rek la aju lam ko ubbee mooy am tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi nee na sarax fab sa alal joxe ci yoonu yàlla ak joxe fab sa alal joxe ci yoonu yàlla dajale nañ mboolem jiw yi mboolem luy jiw rek lu lu baax rek ñaar yooyu dajale nañ ko muy sarxe ak fab sa alal joxe ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon bu yemoon ci loolu rek day daal di doy ndax loo xam ne boo ko defee dajale ga mboolem jiw yi day mel ni kon moom moomata ittiwoo te moomata taxaw daal di wax ne fadailu linfaaqi waltasadduqi kaciratun jiddan ala almuttafaqi nee na ngeen li joxe sa alal ak saraxe ci yoon ngir yàlla nee na ay dafa am njëriñ yu bari lool waxut dafa bari rek waaye dafa bari lool kaciratun jiddan yu bari lool la tey la wax jooju itam ñëpp ci dëppoo alal muttafaqi ñëpp ci dëppoo kenn waruwu ci ñëpp maase nañ ci ne sarax day lu am njariñ lool la ci ka def ak ki koy defal yooyu nag bari na lool sëriñ bi tudd ci yu baree baree bari coo xam ne mat na waxtaan wala ëpp na ko dañ cay jukki rek yenn nat yoo xam ne buñ ci jàppee mën nañoo xamal ya ci des tey it yooyu daanaka day daal doy tey moom it ba ca njëkk mooy day waral nit ki tàbbi àjjana te ab jullit moom lépp lu muy def lam ca jublu ca mujj ga rek mooy yàlla suñu borom tabaraka wa ko ay ñaawteefam te tàbbal ko àjjana sëñ bi wax na ne génne asaka dana tax a tabbe àjjana te doo am ay benn fitna doo jaar ci xisaab doo jaar ci lenn doo jaar ci benn fitna wa qiila in xadara yowmu lbaari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabada alwara aljawa walgumma naada munaadin ayna ahlu ahlu lqimma للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين بأن يقال لهم امضوا الجنة بغير محنة وغير فتنة nee na bu yomal xiyaamee ba suñu borom teew fab siraat teg ci kaw sawara bindeef yépp di jànkoonteeg aw metit di jànkoonteeg njàqare kenn xamut fooy jëm ak lu lay musal nee na bu wax day danañ jékki ba yàgg ñu gis kuy woote kuy woote woote gu kumb naan ana ñuy liggéeyal jullit ana ñu doon saraxe ana ñu doon liggéeyal jullit yi nee na ñoom ñëpp ñu daal wuyu gaaw daal di wuyu ñu ñëw ñun leen dem leen dugg àjjana yéen te du duñ kenn du leen isaab du ngeen am fitna du ngeen am euh, métit dara du leen gaar dem leen rek coow dugg àjjana rek ndax la ngeen doon liggéey ci àdduna muy di saraxe di dimbule jullit yi nee na sarax itam dana jañal nit ay nattu ay balaa balaa yi yàlla y wàccee sunu borom moo moom ay balaam moo koy wàcceel boppam ci jamono yi mu koy wàccee ak ñam koy wàccee ci ñoom waaye ne bokku na ci la cay musal nit nag mooy saraxe bokk na ci la cay musal nit wa kullama wa kullama wa kullama tasaddaqa al insaanu xaafidahu min al bara rahmaan sadaqatun waxidatun qad tadfau sabina miitatan min assuufa min lépp loo xam ne doomu aadama saraxe na ko ak lu mu tuuti tuuti yenn sunu borom dana ko ca wattul dana ko ca aare ci balaa yi nga xam ne suñu borom moo ko moom te moom lay wàcce kon sarax dalay faral da lay da lay fegal mboolem balaa yi nga xam ne suñu borom da ko wàcce ci at mi nee benn sarax rek benn sarax waxuma la ñaar wala ñett waaye benn sarax rek dana la jañal dana la puusal dana la soril juróom ñaar fukki dee yoo xam ne yu ñaaw lay doon dee gu ñaaw dee ñaaw mooy dee ci li lu dul ngërëmul yàlla loo xam ne du ngërëmul yàlla ndax ñu bare bare dañuy defar déggu ñaaw accident la wala lakk la wala nag loolu du déggu ñaaw déggu ñaaw mbirum ñàkk a dee ci li neex yàlla wala nga dee ci lu yàlla loolu mooy déggu ñaaw dëgg-dëgg seen jëy bi neen nag benn sarax rek mën naa fegal nit ki juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw kon bokk na ci sarax li muy jariñ mooy jañal la balaa jañal la dee gu ñaaw boo xam ne amul yërmande suñu borom tabaraka wa taala ñetteel ba mooy saraxe dana dana fay merum sunu borom tabaraka wa taala sunu borom day bëgg day mer ku def lim la digal mu bëgg ci yow ku def lim la ku def lim ku bàyyi lim la tere mu mu mere la waaye sunu borom meram moomu nag xajut ci kenn njuumte yi ngay juumtam yow yàlla laa bind ci njuumte waaye mer ak njuumte bokk na ci li koy far mooy sarax wa tuttiul qadaba walxataaya itfaa ma in naara dil ataaya nee na sarax dana far merum yàlla dana far ay bakkaar ni nga xamee ne noonu la sawara di fayee wala ndox di fayee sawara noonu mu koy fayee sarax noonu lay fayee noonu lay fare ay bakkaar ak i ñaawteef ak merum sunu borom tabaraka mu dolli ci ne faa aynuha fi zillin laha qabla qadaai lxalqi azim fadlaha nee na kii saraxe nit kii saraxe nee bu ëllëgee dana jekki ci keruk saraxe ker sarax day am ker yowmal xiyaam koo xam ne ña ko daan def rek ñooy toog ca ron ker googu nga xam ne yowma laa zilla illa zullu kenn du am ker yàlla moyuloo bu boobaa nag nag dana am ker moom goo xam ne ña daan saraxe ñëpp fa la leen di groupe ñu toog ca ronam di xéewlu wala ñuy yàlla musal leen ci tàngooru yowmal xiyaam yàlla na ci yàlla boole kon bokk na ci li sarax di jëriñ mooy fer euh, fay merum wala mm, merum suñu borom moomu tabaraka wa taala da bokk na ci la muy jëriñ mooy nga toog ca keram googi nga xam ne bu bu yowmal xiyaama ba ñëpp soxla ker te kenn ëngu ko ku dul yàlla nee na sarax moom dana am ker ku muy toogal ña ko daan def ñu toog ci ronam ñeenteel ba mooy day laabal alal da koy sellal day koy sellal di di di di jañ ay balaa di di ak ak feebar man bokk na ci li ñuy fegee balaa li ñuy fegee feebar ñu tawat ak li ñuy sellalee alal wattu ko ba dara du ko aar dara du ko ayibal neen loolu bokk na ci sarax bokk nañ ko ci asaka waaye sarax it dana ko def tutahiru lmaala wa tadfau lbala wa kulla amradin wa fiha fi yujtala nee day day laabal alal di jañ balaa di ak bépp feebar boo xam ne nar la laa dikkal faj dana la ko dana euh, sarax dana la ko fegal juróomeel bi mooy yaatu wërsëg yaatu wërsëg wërsëg yaatu ak alal ju barkeel joo xam ne yàlla da koy fekk ci mboolem yi alak alak alal wala li koy yi koy yàq yépp sunu borom tabaraka wa taala daan la ko fegal ba sa alal ñoŋ dolliku yaatu gën a barkeel حكما اشهدوا أن very bonjour. yaatu wërsëg alal ju barkeel ak alal ju mucc ci lépp loo xam ne lu koy gaar lu koy yàq la wasiatu risqi wa fiha baraka maalin wa lam na min jamii il mahlak waaye bokk na ci it xifatul xisaabi yowmal kurabi wa thiqalul misaani fal taxtasi bi nee na bokk na ci li sarax di jëriñ mooy bu yowmal xiyaamee sa xisaab day woyof waaw fa soo fa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab bu woyof bu yomb say say mbir du jafe bu yomal xiyaamee sarax la duñ jafeel say mbir isaab la isaab bu yomb nga romb daal di jàll bokk na ci it day diisal say braas fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi aishatin radia balaas yi ñuy balaas nga xam lu baax la ci balaas lañ koy teg la ca des ñu teg ko ci beneen place bokk na ca lay diisal sa balaas ba sa nekk mooy sarax day diis gann ci fañ la war a diisale kon loolu lu mat a la yooyu ay njariñ la yenn yu tuuti rek ci yi nga xam ne sëriñ bi tudd na ko ci masalikul jinaan ci njariñi asaka waaw ah, te muy lu tuuti loo xam ne la ca des moo gën a bari lool te yëpp ay njëriñ la yoo xam ne asaka làmb na ko te lenn lu mu ca wax lu ne ab addis la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax wala muy aaya boo xam ne ñëw na ci alquran mu tudd ay mbir yoo xam ne war nañ koo wattandiku it bu ñuy saraxe bu ñu bay saraxe it nag am na yoo xam ne moom dañ koo war di wattandiku nee na ba ci njëkk mooy war nañoo wattandiku jox ko ku dul ku ragal yàlla nit koo xam nga ne kii de ak ragal yàlla am demewut noona ragalut yàlla wattaniku ko wattaniku ko jox asaka ndax boobu da nga koy dimbali ci ak mooy ndax ku nekk ci ak mooy boo ko joxee asaka day fab alal di ko dimbandikoo ci ak mooy te loolu eh, lislaam da koo tere ku nekk ci ak mooy kenn ku dimbali day daane sax soo ko ci dimbali day mel ne yaa ak moom yéen a ko bokk yéen a bokk mooy kon nit ki ragalu yàlla am ay mandarga yu mu feeñal bañ xam ne kii du ko ragal yàlla wala mu nekk di lonqal yàlla kooku lu mu ñàkk-jàkk duñ fab asaka di ko ko jox te gis ku yàlla ku ne ci wetam mu ne am na ci yu baax itam ñoo xam ne euh, daa dañ saxal saraxe bis bu yàlla daal danañ génn dara lu ñu tuuti tuuti donte ni benn mbiskit lay doon noonu la ko tudde donte ni benn mbiskit nga yëkkati saraxe ko loo ñàkk-ñàkk bis bu sedda nga yëkkati lu toll ni benn mbiskit saraxe ko nee na gaa yu baax yi moom daanañ farataal loolu lool ci seen ci seeni jëf ndax loo ñàkk-ñàkk rek am na lu tuuti loo tane keneen mën nga ko yëkkati saraxe ko ngir suñu borom tabaraka wa taala fayee la ci lool waaye am na ñu bari ñoo xam ne dañoo defe ne dañuy nekk ba am rek lu bari door a saraxe te loo loo am rek mën nga caa yëkkati saraxe ca ba am ci aw yiw nee na it war nañoo wattandiku sarax ñu jéggil ko fa war a dem man nga am sarax teggil ko borom man nga am ñu la jege say jege ñaale wala ñu gën a ñàkk ñu ci sa wet dëkk yow nga fab sarax boobee jéggi leen dem di ko joxi ñeneen su boobaa yàlla taxatul nee na sax nit ki jéggi jéggil sarax jox ko ñeneen ñoo xam ne am na ñu leen gën a jege te mel ni ñoom wala ñu gën leen ko soxla nee na kooku day amul sarax te am ak mooy yàlla la def fa aasin jidda sarraxu bi ann man taadda biha li geyrihi fa aasin jidda kon wala tujaawis bi sad bi tasadduqin zahar ila baidin bi su darar nee na bul fab asaka mukk di ko jéggal ki jege ah, yóbbu ko ci ki sori waaye ki jege moo ci gën a yey al aqrabu awla ki gën a jege moo gën a yey kon loolu lu bare bari dañ ko dañ koy wattandiku ndax fab ab sarax wala nga fab asaka jox ko ñoo xam ne ñu leen ko gën a jege ñu ngi ci sawet ñu leen ko gën a soxla ñu ngi ci sawet nga fab ko jéggi ko dem ji ko jox dafa am mel ni kon yow am nga ci <coughs> am nga beneen bëgg-bëgg bu dul joxe ngir yàlla rek kon loolu yi war nañ ko wattandiku bu baax xeeti sarax yi nag dafa bari ndax bu ñu nee sarax rek dañuy defe ne yëkkati dara joxe rek muy alal loolu rek mooy sarax waaye suñu borom bari na aw yiw bari ubbi na bunt yiw tam yu baree baree bare yoo xam ne ah, sarax yëmalewu ko ci ka am alal rek ndax ka amut kon daal di ñàkk pexe moom du mën a joxe waaye mu ne sarax yëmut ci ki am alal rek di ko joxe waaye lépp loo xam ne njariñal jullit ma nga ca mooy sa jaa sarax lépp loo xam ne nit ki mën na ko jariñoo rek mën naa nekk ab sarax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci hadis ne kull fii kull wala kullu maarufin sadaqa ne lépp lu baax rek sarax nga ca lépp lu baax rek sarax ma nga ca cheikh xam radiyallahu taala anhu gën koo leeral ne wa axbaru bi anna rakatayni waqta duha wal adla bayna snayni kaha kaza tasbi kaza tasbihatun anhu takun muxdiyatan tax taxmidatan kaza tabin nee na boo amul alal joo mën a saraxe amoo dara dara dara loo mën a saraxe wala nga am ko sax waaye nga xam ne lii tam nag sarax la moom it mooy julli ñaari rek waxtu yor-yor waxtu yor-yor jot rek jant bi fenk ba jub ndànk nga daal di jàpp ba set julli ñaari rakka nee na loolu sarax bu rëy rëy rëy la te joxewoo alal nee na it eh, maandu ci diggante ñaari nit maandu ci diggante ñaari nit moo xam ay soxna lañu moo xam ay liggéeykat lañu moo xam a doon nga maanu ci seen diggante bañ caa jeng loolu it moom nee na mook ab sarax ñoo yem naka doon sàbbaal yàlla subhaanahu wa taala di wax subhaanallah subhaanallah walhamdulillah subhaanallah walhamdulillah sàbbaal bu nekk sarax sarax la ak am alhamdulilah julli sarax la kon di faral di wax subhanallah walhamdulilah subhanallah walhamdulilah loolu rek boo ko waxee ta am ci ak sellal loolu rek sarax sarax la wa kullu xutwatin li masjidin kaza daf unu xaamatin badat fihi quza nee na bépp jéggu jéego boo jéggi jëm ca jàkka ja ba ngay dem ci jàkka nga am yéene ju rafet waaye jéego boo jéggi ba nga jógee sa kër ba nga àgg ci jàkka ja lépp sunu borom dafa la koy bindal yoolub sarax la la koy bindal naka noonu tam dindi luy lore ci mbedd mi lu mel ne aw aw aw aw tiflit wala ak dëkk wala lu mel loo xam daal lépp luy lore ci mbedd mi nga dajeeg moom yow dindi ko yow doo ca loru keneen du ca loru loolu rek la muy tuuti tuuti nee na suñu borom tabaraka wa taala dana la ci bindal yoolu sarax wa kalimatun tayibatun aydan tafi misa tasadduqin bi xawli salafi nee na baat bu baat bu neex rek wax ju neex wax ju neex rek nga dajeeg sa morom jullit waxal ko lu neex ba kontaan ba reer rek loolu rek nee na ab sarax la ko suñu borom di bindee moom loolu la koy bindal eh, ëllëg yawmal qiyaam <clears throat> naka noonu wa kaza rusluha taqyimu masjid taqyimu masjidin kaza idaafatu siraaji fiha faqza jumaa nga dem ca bale ku bokk ca ñay bale nga bale ko ba mu set bëj wala nga def ca ab làmp bu koy leeral loolu lépp ab sarax la boo xam ne sunu borom tabaraka taala daf la koy bindal kon loolu ñëpp ñi nga xam ngi sonn ci defar jumaa ñi ngi sonn ci setal jumaa ñi ngi sonn ci leeral jumaa war nañoo xam ne loolu ñuy def ah, ndimb yaa yaa ngi yaa yaa ngi gërëm loo yàlla waaye yaa ngi def ab sarax boo xam ne sunu borom tabaraka taala ëllëg dana la ko fay buy fay bor ña ñi nga xam ne ñoo saraxe ak yeneen njëriñ yu baree bari lool bari lool yoo xam ne ñu ngi ci asaka sëriñ bi sëriñ bi tudd na ko ci Masaalikul Jinaan ku ca delluwaat da gis njëriñ yu ëpp yi nga xam ne moom lañu moom la ñu tudd nee nañ bokk na ci li ñu sopp nag boo demee bay saraxee la ci njëkk mooy na ko sell na nga saraxe te yàlla tax ndax loolu dafa bari ci nit bari ñoo xam ne leneen a tax ñuy saraxe dañ leen digal nàngam defal guru gu xonq ganaar gu nàngam béy gu nàngam xar gu nàngam nàngam nàngam jox ko diw yooyu yëpp ñàkk ixlaas la wa ma wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin yàlla day bëgg boo koy jaamu te sarax jaamu yàlla la kon loolu boo koy def na nga ko sellal te yàlla tax bu ca boole dara lu dul yàlla bu ca boole dara lu dul yàlla fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada sarax jëf ji yiw la jëf ji yiw rek sunu borom ne def ko te bu ko booleeg bokkaaleeg dara waaw yooyu yëpp xeeti bokkaal la yoo xam ne ñii ñi ngi saraxe loolu day tudd leneen waaye moom du tudd saraxe sarax boo xam ne dañ la ko digal nga def lii def laa na mel nii na mel naa sarax moom yàlla dong la dañoo wax ne boo amee aw yiw bu la dikkal saraxeel ngir yàlla saxal yiw woowee ci yow boo amee natt bu la dikkal saraxeel ndax yàlla jañal la natt boobee ñaar yooyu rek mooy am ab jullit yiw rek lay am wala naqar wala safaanu yiw loo ci am rek saraxeel loo ci am rek saraxeel ñu bari nañu faral di laaj damaa gént nangam damaa gént nangam waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu leeral mooy boo géntee lu baax nettali ko sab soppe te saraxe boo géntee ab safaan bu ko nettali kenn saraxe loolu rek la digle bu dee lu baax daal nettali ko sa soppe saraxe bu dee ab safaan bu ko nettali kenn saraxe nag yëpp rek saraxe moom bokk na ci li koy li koy li koy li koy fekk bokk na ci it euh, làq ga lañ ca war a sàmm mooy làq ko nëbbu ko ba kenn du ko xam ñu bare bare bu ñuy saraxe bu def donga sax da koy wane ko am yàlla jox la nga xam ne jàpp nga ne boo waxul loolu du sarax te loolu du ca dara wala am ma sarax la nga xam ne baatub sarax bi da ngay ne moo ci war a ànd waaye te loolu ci xol bi la nekk yow li nga joxe li nga mooy sarax boo yéenee sarax sarax la boo yéenee addiye addiye la boo yéenee ndimbal ndimbal loo yéene rek loolu la la yàlla suñu borom tabaraka wa di jàppal kon wax gi jë jëru ko waaw suñu borom nee na tabaraka wa taala in tuxfu sadaqaati fa ni'am maa hiya wa in tubdu sadaqaati fa ni'am maa hiya wa in tuxfuuhaa wa tuutu al-fuqaraa fa huwa xayrun lakum su ngeen ko feeñalee day baax na waaye nag su ngeen ko nëbbee xatta laa ta'lama yam shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam daf ne booy joxe asaka li ci gën mooy sa sa loxol ndeyjoor bi koy joxe loxol càmmoñ bi du xam lu mu def nëbb ko foofu lay àgg xëy loxol ndeyjoor bu doon nit bu joxee ba noppi loxol càmmoñ bi du xam ne loxol ndeyjoor bi joxe na dara. kon loolu la ci am solo mooy yéene jaa ci am solo waaye kan ko jëmee amu ci solo am ñoo xam ne dañ koy wëndeel waaw wëndeel ci kaw nit ki wala nga wëndeel ci dara yooyu yëpp ay xeeti bokkaale la yoo xam ne ndax wëndeel gi day mel ne da nga naan moom na jógee ci man dem ci moom bu boobaa dut sarax man ay lii may bëgg a fegu na jógee ci man dem ci kii nga koy sarax loolu nag bu boobaa leneen lay doon lu dul sarax kon yàlla na subhaanahu wa taala dimbali ñu bokk ci woy sarax yu góor yi ak woy sarax jigéen yi te nangu suñuy sarax te def ko ci suñu balance yu yiw yi nga xam ne moom la ñuy am ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات ناداه سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله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 أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها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 وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالإنسان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 بفضله وجوده وكرمه آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين Thank you. allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salam hayya ala falah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah Allah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 allahu akbar sami allah liman hamida الله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 المنكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم assalaamu aleykum